باي وتسخل من وانا يهول بسرهم وانفسهم لو بالسمرك بتجو تسخل من وانا اليهود بشرهم واو واو وأنفسهم لو بالسوارق تجيجون لتقتلوا فمني فمني الذي مني ومنك تكرما أتى الخير أتى الخير كل الخير kon yàlla yàlla defal waa presse loolu. yàlla yàlla def waa ñeelee def waa presse lii yàlla yooyu ba àdduna dafa koy baqam. bi jaral la bi jamal la. bi référé ko moom bi jullee ko moom. atal xeer ku la xeer. waa Abdou Ahmad. kon ñu koy ndokkeel baax ñu ngi leen ñu ngi di gërëm ñu ngi leen mbokki taalib yi ñub ci yàlla la ne. wallaay ngay xam yàlla rafet na trop neex na lool. waaye nag njubu ko gën njub moo gën lépp parce que njubu yi moo leen dugal safar te njub moo dugal ajjana kon loo xam-xam-xamee tu juboo baaxul kon njub moo gën foor lépp au lieu nga pour innal huda wal huda gis nga njub billahi moo gën lépp lépp loo mën a wax ci aalam bi am yàlla njub moo gën njub moo tax xool yàlla indi benn aaya benn saar rek mooy fàttali ki nga koy jàng chaque jour lu mu gàtt gàtt gàtt gàtt dix-sept fois chaque jour nañaa yàlla njub ihna sat mu saqe ihna sat mu saqe sat mu saqe mooy sëñ am am dama xëy na moo di waa Lim. mu ne amiin waaw amiin na. gaa yi boo ko ci fàggee. te amiin yi bu doon amiin malaaka yi du doon amiin. te malaaka yi xaqaa yàqee. na su may amiin bu doon xaqaa du doon amiin. gaa yi di wax ñoom loolu yow. da nga amiin bu doon amiin malaaka day du amiin. te malaaka yi xaqaa yàqee amiin mooy nas bi kon nas bi fekkee na amaan ba am ko kon du amiin. maa ngi si déglu yow nuyu baax na yow mbokk yi. wasalaamaaleykum wa rahmatulah. Uras Info, Ribari Gao. Tewor, Uras Info, l'info à temps réel. Uras Info. Djangat du te notre force, on le traite.